mi baa na nga yaa ngi tudd rek xaw magu Adji Sarr nee ne xaw ma moor la tudd moor dégg nañu ojoom ne moor boobu Adji Sarr du rey ay nit moom muy dund ñaata nit ñoo dee ñaata nit ñoo dee léegi ci problème Adji mu indi ñaata nit moo ci dee ñoom tey lañu xam diggante joolaa ak séeréer dafa for tey lañ koy soog a xam Adji Sarr amul mbokk bu ñu nee yaayam dafa génn àdduna am na baay am na ay nijaay am na ay lu nekk lu tax ñooñu jóguju taxaw depuis le début ñu ne jox lañu suñu rakk ñu ñu lijjanti ko entre Joola ak séeréer ñu bàyyi ay nit dee ci ay bakkan deret tuuru ci yàq yu bëri tey ñuy soog a waaw na na na message bi jàll waa Casamance bu dee am na nu ñu def nañ ko baal nañu teg lépp ci suuf bu tanee mu mu dina wax lépp aji Sarr moo dul dund ñii dee à cause de Adji Sarr am na xaw ma lu lu mot dix personnes ñu dee moom Adji Sarr mu nar a dund Adji Sarr du fi dundee Dakar muy yaataa yóbbee ak ay millions yu ko dig dina ko fekk ji àlaaxira ay xale yu ndaw ñoo dee ay 12 ans ay 15 ans ba 16 ans ki problème Adji moom frère am na dégg message yi ne leen ko lu ñu def def nañ ko ba pare. te defaluñu ko Adji Sarr kese képp koo xamante ne yaa ngi ci ginnaaw Adji Sarr yow complice nga yaa xam policier nga yaa xam capitaine nga yaa xam loo mun di noon muy avocat muy complice député képp koo xamante ne yow bokk nga ci complot Sonko bi képp ku ñu jox xaalis yow bokk nga ci complot bi billaay doo ko fekkee billaay doo ko fekkee ñun suñu yaay du ñu jóg ak seen leket yi pour neen duñ ko def jamais pour neen day yàgg waaye dinañ ko gis te dinañu dee par kenn kenn ay weñ ku nekk di nga avoué gisaguñu dara du ñas mu ngi nee hôpital nañu dem ñu ne ñaari député dem nañu tey sol pour pour baalu ji xawma pour pour demander calme Ziguinchor kese la yëf fi nekk dëkk bu nekk taxaw ngeen dëkk bu dee mën nañu tas dëkk yi ne Casamance dëkk bu nekk ñu dugg fa pour baalu dinañ ko seet nan ñu dem. yëf yi bu ñu tàmbalee mbokkam yaa ngi ne tekk tekkaala ñu jox leen xaalis ñu toog te ñu gis ni diggante joolaa ak séeréer ak luñ ko yàqal ak luñ ko tuumal dina metti lii dina dina metti réglé te Sénégal cette dina dina metti dina saf sap dina saf sap ndax lii képp ku ci laxasu rek yow am nga problème mooy frère am boo frère Adji Sarr boobu di wax ne leen ko lu komba pareegul nañu dem jusqu'au bout waaw seen frère commencé nañu kenn waxul ñi topp ci xaalis bi nañu dem nañu dem de ñun duñu bàyyi dara ñu bàyyi dara lu ñu defoon xalifa Sall def ko Karim Wade mu jig ci Sonko lay mujje du amaat abadan lu ñu def Sonko du amaat ci kenn ndax ñoom ñëpp dinañ ko gis dinañ ko gis duñu bàyyi de bàyyiwuñu mu sedd dara bàyyiwuñu dara soot sedd dara du fi sedd nañu dem jusqu'au bout nun tam pare nañu pare nañu suba bu ngoon pare nañu ñi dee yëpp dina leen toppi dina dox sànni serum daw dina xam ne laal na fu mu warta laal duulal na ku mu warta duulal ngir xaalis nañu dem rek yàlla kuy yàlla toujours borom dëgg bi fa lay féetoo nañu dem rekk